Toujours dans votre acte du jour de ce lundi 30 octobre 2023 dama bëgg ñu seetaani benn vidéo bi nga xamante ni di grand serigne de Dakar Pape Ibrahim Diagne wax na ko ci kii nga xamante ni mooy Amadou Ba ñu dellu soir. waat. bokk yaakaar waaye nag loolu yëpp am na lu ko jiitu mooy bokk bi. Ờ, gră. yow bi ma lay xam nekkoo woon lii bi nga may xam yorom woon baatu ndakaaru sama bàyyi ko yoroon yow nag xam nga luy sa nattu hmm. da nga yor say noon fas yéene doon noonu Macky Sall. nee na la yor say noonu. yor say noonu. waaw fas yéene doon noonu Macky Sall. dafa métti. lool lool. waaye nag li lay dimbali mooy gëm yàlla Sëñ Fallu Mbakke nee canal dafa tardé mu lutax moy dafa fekk yalla daf ba nopi muy soog a kon gëmal yalla ñu lay wër nak ci réew mi ñoo ëpp APR fop ño upp Benno Bokk yaakar fop na dëgg na dëggu ci sa bop te nga gëm ko nak ndax lima lay wax yaa koy dama koy baamtuwaat dama ne. Hmm. ñu bëgg Amadou Ba. te di la wër ñoo ëpp fopp APR ñoo ëpp fopp Benno Bokk Yaakaar te buñ ma laajee fan laa ko teg man mën naa koo nettali mën naa koo wax. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bi nga xamante ni kii di grand serigne de Dakar di Pape Ibrahima Diagne def na ko muy ay seede yoo xamante ni def na ko ci candidat coalition benn bokk yaakaar di Amadou Ba waxee ñoom ñaar lu leen séq ak lu ñu boole bi ko Amadou Ba di moom nekkul li mu nekk bi muy xam Amadou Ba nekkul lu mu nekk mais xam la ni que Amadou Ba jamono ji nit la boo xamante ni dañ ko respecté maanaam mu am xamante ni tey mën na jiite Sénégal eggale li nga xamante ni Macky Sall defoon na ko am yaakaar bu baax a baax ci moom maanaam tagg na ko daal li ñu mën a jàpp daal kii di Amadou en tout cas am na soutien yi nga xamante ni mooy famille religieuse yi ak famille coutumière yi nga xamante ni ci Sénégal ginnaaw bu mu leen seetsee wax ji benn la gis ngeen ci gàmmu Tiwaawan bi bu mu demee seeti kii nga xamante mooy Serigne Mbaye Sy Mansour di xalif général des Tidianes kii nga xamante ni ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh leer la ko wax bul geestu demal ba ci biir kii di Pape Ibrahima Diagne di grand Serigne de Dakar tamit am na lu mu ko wax ba fàttalil ko li nga xamante ni mooy Serigne Fallou Mbacké waxoon na ko mooy nee dafa am kaddu bu mu yëkëti won ne ko iñan dafa tardé mu ne ko lutax mu ne ko dafa fekk yalla jog ba tracé ba paré yow ngay sogo jog kon dafa tardé kon Amadou Ba bu mu gessu bu mu xol ñi nga xamanteni ne ñi ngi koy iñané manam dañoo tardé yalla tracé na ko ba nopi muy ay kaddu yi nga xamanteni pap Ibrahima Diagne di grand serigne de Dakar yëkëni ko jëm ci candidat Benno bok Yaakaar bi di Amadou Ba <laughs>